Bonjour, comment ça va et santé. mbokki Tiwaawan ak li ko wër CPJE di convergence patriotique pour la justice et l'équité honorable député Demba Diop si jiite ko lëkkaloo ci ak oada organisation africaine pour le développement académique et sportif dina amal ay journée de consultation médicale gratuite ba si nemmiku yaram yu kenn dul fay dara ci wàllu bët ak jàngoro yi ñuy wax cancer du sein ak bu col de l'utérus di jàngoro yuy faral di dal jigéen ñi loolu di am samedi ñeenti fan ak dimanche juróomi fan ci weeru décembre 2021 ci siège wala makkaanu CPJE convergence patriotique pour la justice et l'équité nekk ci Tivaouane quartier Jidda waaye mbokk yi jàpp leen ni dinan mayewaale lu toll ci ñaari junniy peeri lunette CPJE ak owada di ci woo ñépp di leen aar seen ci jàngoro yi